jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb wasaare TV mbokk yi euh, miin ngeen xar kanam gi ñu dalal naam muy Serigne Idrissa Ndiaye sëtal ak Daawur nekk nit koo xamante ni ku yàlla baaxal la mu yëngu ci wàllum ñaan ngeen xam ko bu baax a baax a baax ay nag dañu fas yéene laale laale boo xamante ni laale bu am solo la bàyyi jiri sa Idrissa xam naa du yomb bu ngi ree waaye du ma ko may dara te lu ma may lay nuyu baax di la siyaar auzu billaahi mina sheytaani rajiim ginnaaw bi ñu sante yàlla juli si yonent bi ah, di la wax salaamaaleykum Baye ñu ngi lay dalal naan la bisimilah jàmm ah, di nuyu waa Sénégal di nuyu sama sëriñ sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Axlaa di nuyu fukki penc yeeg ñaar di ñaan si réew mi jàmm. Mm-hmm. Eh, yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi waaye yow moom at bi ni nga ko ubbee <laughs> neexut ci yow de parce que idi mi ñu xamoon. Mm-hmm. idi lu mu wax mu am. Uh, lu mu wax ñu gis ko uh, lu mu wax sax mu am yàlla moo ko yàlla moo ko moom waaye yàlla mbaaxe na la ci loo wax ci ci ay jamono ñu gis ko ñu gis premier janvier at bu bees mm -hmm. Idrissa Ndiaye ni Balla Gaye day daan Bombardier idi ba Bombardier mu mujjee daan de ñëwal alhamdulilah ñu sant yàlla julli yonent bi. Mm-hmm. vidéo boobu man na six mois. Mm-hmm. Mm-hmm. na six mois sun euh, Seneweb la woon. mais yaa ko wax rek. waaw defal nank rek. wax moom balaa moo neex. kii wax leeralal la. et eh, damay assumer wa encore tamit ah. du nëbbatu li may wax. li ma jox c'est clair et net je suis né à Guédiawaye. doomu Guédiawaye la Balla Gaye day daan Bombardier je supporte Balla Gaye 2. loolu nga wax. te bi ma ko première premier combat Balla Gaye bi la bi ñu reporté deuxième combat bi kenn dégg ma micro waxuma ci mooy bi ñu daanee Balla Gaye. kon da ngaa bëgg wax Idi mi wax en tant que fara supporteru Balla gay moo wax waaye du Idi bi nga xamante ni xam nañ ko ci wàllum ñaar Idi sa tur daal. kay bi may wax dama wax dama préciser dama préciser wax li may wax. dama préciser ne leen je suis né à Guédiawaye doomu Guédiawaye la non mais Idi loolu ànduma ci en mm. tant que ñaankat. non non mais fooy far non si. ba xam nga xam nga lu tax man la am na droit far si Balla Gaye. Mm. àdduna ñëpp xam nañ ni nit ku nekk am nga foo far. tey mu ngi nii damaa far si Balla Gaye far si Modou Lo àdduna loolu dañ ma koy dañ ma koy nangul. kon Bombardier bu ñu woon ci yow pour nga ñaanal ko doo ko ñaanal. non muy tasanteeg Balla Gaye muy tasanteeg Balla Gaye waaw du ma ko liggéeyal. mais ñaanaloo ma jox kon mm-hmm. mm-hmm. bi mm-hmm. ah. ki ka nga bi muy bi muy bëre bi muy bëre combat combat combat bu euh, di tasanteeg euh, Coly Faye. Balla bi muy tasanteeg Ousmane Diop. sama buntu kër ak fa mu loon ngémboo benn la loolu dafa yàgg soo gisee ma ne la tamit léegi damay Modou Lo dama ko faral. Hmm. dama fa may am di jàmm yoo xam ne damay ànd ak ñoom damay sëkk ak ñoom teraanga damay sëkk ak ñoom leneen ak leneen ak leneen. Hmm. ay kilifa yoo xam dañ ko jege. Hmm. ay nit ñoo xam ni kenn kese laa si cité. chaque jour su ngeen ma laajee Demba laay cité. mais am na ñoo xam ni ay ñu si wàllu sport bi. te dañoo jege Modou te samay xarit lañ dañoo yegg foo xam ni tamit am n loo xam ni tamit euh, gor su nekk gor nga. foofu laay waxee mais suñ ma dékkaatoon micro bii laa la wax nii laaj ma hmm. si combat Balla Gaye hmm. Bombardier hmm. man leen Balla dafa nekk si néeg bu lëndëm te audio ma wax la ak loo xam ne maanaam tam bi ma bi ay nit di ma laaj si combat bi dama ko capture dama ko def lépp envoyé waat ko waa Seneweb ne leen waroon ngeen ma laajaat ba pare man leen déglu leen li ma la envoyé leen ko xam nga WhatsApp du fen soo defee maanaam heure bi dañuy xam ban jour la kenn na nax kenn si ay audio pourtant dama leen wax sax ba wax leen décision arbitrage Hmm. <laughs> pour ma wan la ni. Idi tey daal décidé de. Idi Idi tey kenn du ko yóbbu vaar bu dem. te man ak sama nijaay ñoo ci loon waxtaan. Hmm. Euh, mu ngi nii. nga gis lan. Euh, defal nànk rek. Ah, di ko génnee waaye dañuy dañuy waxtaanaale Idi tey boobu. man ak sama nijaay ñoo ci loon waxtaan. Hmm. yàlla xam na ni fii la wax ji commencé. mais man bu baax di li ma. ñu mu ngi nii. delluwaatal ci audio bi nga teg ko ci micro bi ñëpp de. mu ngi nii déglul. arrière ko. wala gisoo ñu jox ko par victoire par décision arbitrage. kee naaj wala gisoo loolu. Hmm. pourtant noonu la làmb ji taxawee. noonu la làmb ji taxawee maa ngi koy waxtaan fii léegi si ma ni dama gis Balla Gaye si jafe-jafe lëndëm mais hmm. day làmbatu Bombardier nag fi mu taxaw benn morceau bu benn affaire bu weex moo nekk si yaram muy rulle loolu leer leer la Balla nag mën naa dem ba sa biir làmb xam nga ñi mu ànd xam nga liy waxtaan la man ak sama nijaay ñu ciy waxtaan hmm. biñ ne suba la làmb ji mu ngi ni 31 décembre la xam nga 31 décembre décembre mu ngi nii mu ngi nii 31 hmm. décembre vingt et une vingt et une heures vingt et une heures vingt et une heures vingt et une heures man ak kon la veille du combat. la veille du combat. Hmm. man parce que combat bële bi ma ciy wax. boobu Balla Gaye dafa moomoon làmb ji da ko téye woon. Hmm. mais bii man pare woon naa dama foogoon ñam su passé rek passé na. Hmm. comprendre nga. mais su ma xamoon ni maanaam su combat jeexee dañuy génne sama vidéo boobu man ay di dama ko envoyé sax dama da nga wax si làmb man leen non non wax ma si làmb ji. ma xool man leen lii bu yàgg balaa. mais nit ki su waxee si dara amul. su loolu jegewaatee ne kat sëñ Idrissa lii wala laa wala lee. mais yow bi ngay wax combat bu ñu reporté lu tax gisoo reporté. combat bi nga gis ni Balla Gaye day daan Bombardier ñu baal ma. Mhm. man xooluma pour combat dañ koy reporté. Mhm. en tant que sama mbër. te suñ ma laajoon bañ ne suba la combat bi ma wax leen li ma gis ne leen sama mbër fi mu jàpp baaxul. dama leen ko wax leer parce que Balla gay laay supporté mais nag wax dëgg tamit du ma teree ma koy bañ wax parce que maa ngi woon stade Mm-hmm. làmb ji dem naa esat falaa ko seetaanee mm-hmm. ñoom góorandooy gis nañ ma président des jeunes amateurs man ak Mar Ndiaye a àndoon esat mm-hmm. j'étais au stade kon am na loo xam ne mooy loolu buñ profité si benn fee rek ñu bëgg a euh, ñu bëgg ñu bëgg gaaw naan vaar vaar non non du vaar kon yow kenn a la vaar déedéet même buñ la fa bëggoon yóbbu doo dem du ma fa dem xam nga tax du ma fa dem waroon nañ maa laaj ba pare nañ ma laaj Mm-hmm. suñ ma laajee nag su ma waxee lu méngoowut ak li ma waxoon. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ak yonent bi su leen neexee ñu yóbbu ma vaar loolu bañu ko. dëgg la ah, mais nag loo xam ni ba ma ko waxee le vingt cinq ba la. le vingt cinq bi biñ njëkkoon jàpp mu mu mu mu ñu amoon ay affaire Covid bee taxoon. waaw mm-hmm. ah, mais. ñu indiwaat ko nañ ma dékk micro rek wala waa wasaare ñëw dékk ma micro. léegi comme demoon nga làmb ja. Mhm. gis nga Balla Gaye mhm. jël bi ko Bombardier daan. mu mhm. doon jël boo xamante ne jël bu rëy la. Euh, ci làmb ja. bi nga dugg gis ñaari at la di. en tant que ñaankat. ci rawaan yi ci kan la gënoon jublu ak moment bi muy jublu ci moom lan nga gis ni rawaan jublu. wax wax wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla. Hmm. bi ma gisee Bombardier ñëw wane ginnaaw. Hmm. and ak benn sëriñu pël bu sol hmm. yére bu sokalaa hmm. ñun boromi baatim lañ yàlla may nañu hmm. xëy na nit ki mun nga ñoo gis nii rek mais am na lu ñu yàlla may bi waa ji jatee di génne si quatre coins yi génne li muy génne di sànni mu ñëw yor benn laspeeram jat benn ceeli di ko traversé muy jat ceeli bi ba ceeli bi génn si laa ñi ma dendal ma leen carrément làmb ji actuellement mu ngi si loxo bombardier te li ma gisoon démb ci guddi laa gisaat ba tey bombardier moo taxaw moo am ndam ne leen mooy balaa bombardier di ko daan fii fa ma toog di foog kii dem ardo ba pare foog Balla naaj ba pare après ñu doog ko jox décision arbitrage man noonu laa gisoon. non action bu njëkk bi site am na. non site am na mais maanaam la nga la nga gis xam nga site boobu après lañ koy doog a mhm. xam nga site boobu après lañ koy. Mhm. mais la ma gisoon man man mooy décision arbitrage boobu te loolu mhm. moo ci am. la. waaw mais ku xam Balla Gaye jour boobu xam ni Balla Gaye ah wax dëgg yàlla ak Hmm. mais des naa am ay sëriñu làmb jour boobu. Balla Gaye jour boobu. waaw kon da nga bëgg a wax Balla Gaye jekkul woon bis boobu. no su jekk woon la xew yëpp du ko def. Balla mu jekku rek wax dëgg yàlla ak bi làmb ji dina demee neneen. mais Idi Balla bàkku na. Balla yëngal na Balla def na. lan moo tax à chaque fois ñaata mbër fi ñëw def ko daanoo rek gaa yi wut prétexte. non dañ euh, ñaata mbër non doo man wutalu ma ko prétexte wax dëgg yàlla ak yonent bi. mais hmm. ñaata mbër fi ñëw bàkku ñu daan la bari na. Hmm, mais maanaam na xoolaat boppam na xoolaat doxalinam. moom kan moom Balla na xoolaat doxalinam doxalinam nag waxuñu comme di gars yi génn fan yi di wax naan Massamba ak Massé déedéet doxalinam moom en tant que mbër mi. Mhm. li manqué si moom moom mu def ko ci moom. moom moo manqué si moom. xam nga xam nga man euh, euh, euh, je suis mal placé pour parler. kon da nga bëgg wax Balla Gaye 2 amul gàllaaj. non waxuma cadre gàllaaj non waxuma cadre bëreeg Yaxya Jóob Yékini am gàllaaj moo ko bàyyi bëreeg Tapha Tine ñi ëpp mystique ci lamb ji Balla Gaye bëreeg ñoom jili ma dama la mhm. combat bii combat bii mhm. lam inni des bu ñu ko wax dama ni la combat bii mhm. des na kon Balla fi mu doon dem dematu fa ah xaw loolu rek moo mun a bu fekkee Balla mi amoon ngemb bëreeg Modou Lo bëreeg Gris Bordeaux bëreeg Tapha Tine. Mhm. moom moo ñëw mu am lu manqué mooy fi mu doon dem dematu fa rek. waaw de ce fait xam nga xam nga mooy maanaam xam nga tey gars yi mbëri moom. Mhm. tey ñu dugg fii suba duñ dugg fee. Mhm. wax dëgg yàlla ak bi. waaye nag combat bi wax dëgg yàlla ak bi. des na daal. carrière Balla Gaye actuellement nan nga ko gisee li des ci trois combats yi mu am wala quatre combats yi des ci kanamam. man de li ma ko ciy wax lenn mooy. Mhm. mu gën a yokk entraînement am. moom Balla. Mhm. ndax keroog loolu feeñ na si làmb ji. amul woon entraînement. non waxuma amul entraînement. entraînement dafa des keroog dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko mal mëne trop ñuy seetaan dañuy waxante dëgg sama mbër la. Mhm. mais dañuy waxante dëgg keroog dafa des. Balla Gaye li mu doon indi dëgg si làmbam si wàllu coffre si wàllu physique soo xoolee contre Gris Bordeaux endurance bi mu nga xool contre Modou Lo endurance bi mu indi ko contre bombardier. mais endrance bi mu indi contre Gris Bordeaux bi mu indi ñëpp nee nañ état boobu mooy état bi gën a bon bi ñu gis ci Balla Gaye 2. <laughs> état bii ma gis nag barkaati Demba Ndiaye baaxul ci man ku nekk sa gis-gis. état bi arrangé wul. non non non. boo sañoon sa mbër defaruwaat. su ma sañoon mu gën a nekkaat comme Balla bi ma xamoon su ma mu gën a nekkaat comme contre Modou Lo deuxième combat bi. dëgg nag moo neex yàlla. Mhm. ñun waxuñu ko ngir leen mais dañ koy wax ngir defaral ko. B52 noo ko gisee. waaw gis nañ ko nag wax dëgg yàlla ak bi mbër bu ko si mbër bu si entraîné wul doo ko daan. Bombardier. Mhm. mystique mbër bu ko si respecté wul tamit doo ko daan. mystique. mystique am na si làmb. Bombardier am na mystique. am bu baax. rawaanu lan la am. non fii képp kuy képp kuy bëri si géewu làmb yaa ngi rawaan. yaa ngi lépp mais Idi man li ma jaaxal Bombardier ñett sengoor lay indi quatre butéel. sottee kooku du takk du niin du def dara te boobu day daan gars yi ñaan daa am ngem waaw mais ñaanu ñaan ñaanu bor euh, ñaanu baatim day am des fois maanaam say bagage mun nga ko sangoo sa kër mhm. des fois bagage yëpp mun nga ko sango sa kër waaye nag nit ku nekk ak na nga yàgg bëre rek moom noonu la yàgg bëre ñu ngi koy ñaanal tamit yàlla na ko ndam li jik mhm. waaw di nuyuwaale benn xaritam bi nekk ba France Sarr saar moom sama waay la saa nga fa tey moom mooy tooñ. Hmm. waaw di ko nuyuwaale bu baax a baax di wax ni làmb la sport la mooy loolu ñoom ñaar ñoo mën a xaalis. Hmm. Hmm. yow yaa ngi ba Gambia. dëkk boo xamante ne vraiment événement wu làmb lim la fay fekk bari na. bu la làmb fekkee Gambie. foo koy seetaane ak ci lan nga koy seetaane. waaw làmb moom su ma fekkee gàmbi des fois sama copain nekk fa Jamaïcain mu tëgg. ma dem assister ko ànd ak moom ba si bis bi jàppale ko. su ma si paree delluwaat sama kër. lamb ju am Sénégal laa wax. Mhm. nga di ko seetaan Gambie noo koy seetaanee. waaw non foofu xam nga sama kër am na mhm. mhm. ah, nekk fa liggéey fa laay ma toog Sénégal bëri na te am na client yoo xam ne ñu ngi toog Gambie dañ maa soxla dañ maa yàkkamti boobu ba tey. wax dëgg yàlla ak yonent bi. lamb ak code. pay per view. nan nga ko gisee ci lamb. waa lamb ak code ak pay per view moom wax dëgg yàlla ak bi dafa metti Hmm. metti gi mooy lan maanaam tey soo waree dugal sa code des fois da ngay dugal connexion bi du neex. des fois hmm. nga jënd ko avant jour ji avant jour làmb sax. Hmm. nga koy utiliser connexion bi du neex. donc ce qui fait ce qui ce dire que war nañ xoolaan maanaam yeneen jumtukaay ba euh, sponsor yi ñëw. sponsor yi su ñëwee làmb dina gën a mën a dox dina mën dem dina gën a mën a dem ci kanam. kon yow télé ak pay per noo ko gisee. man télé ma dàkkal. moo la dàq. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. kon boo sañoon làmb delluwaat ci télévision yi. sañoon làmb delluwaat si si si télé yi gars yi jàpp si ak gouvernement bi ñoom ñu ngi ci war a jàppee ñu jàpp si.